lu ma nit mësa may ci théâtre waaw am na ci ñoo xam ne dañu lay yéene mais ndeysaan doole ja eggu fa waay yàlla day fay yéene ndax léeg-léeg nga dugg ci oto sax doo fay mba nit fayal la yéene la léeg-léeg nit gis la rek daan ah bariwul de dindi cinq cent may la wala mille francs yéene la ndax yàlla day fay yéene mais nag Marème Faye Sall dama koy sant gaa nag samay problème ak samay soxla des na ba tey waaye ah li ma li ma ci moom mosuma ko am ak Cheikh Kanté 74 ba tey théâtre ndax dundal na la ndax li nga yaakaaroon am nga ko ci théâtre ndax fi nga bëggoon xam nga bu jëkk ñun dañu amoon amour théâtre daan génne aussi ay sujet yoo xam ne c'est éducatif ba tey yi ñuy génne nii sax ñàkkul ne am na yu ci éducatif mais yu tey ak yu demb yi c'est diamétralement opposé aussi itam donc koy seet rek footballeur footballeur yowoon démb ak ñu tey ñi lu be li nga bëgg am ko ci théâtre ah li ma bëgg day amaguma ko ndax fii nga ma fi nga may eh, eh, interviewé damaa luyee te kër dong laa soxla kër laa soxla ndax terrain boo ko amee te benn million tabaxu ko ñaar tabaxu ko kër laa soxla ñun les anciens ndax su ma

ba mu bi nga gisee Marème Faye Sall waxoo moom nag bëgg naa jàkkaarloog moom jàkkaarloogu ma ak moom jottalante laa am. jottalante bi la def waaw. waaye nag jàkkaarloo nag ndax jàkkaarloo balaa neex ñi jàkkaarloo bañ a bañe te mag moom bañ a wuñu bëgg naa jàkkaarloog. lan ci ba nga kontaan te jàkkaarloo goo leen. Ah, na ma. Hmm. luma ma faje yenn soxla yi ndax booba temps yëf yi dang na arrière bi bari na mu dang lol mais génne na ma ca waaye fi mu ni daal génn bi may ñaan dëgg dëgg dëgg muy moom muy arrière bi manam arrière location bi waaw ndax tey jii suñ la mayoon tey jii trois millions fekk nga am arrière location it balaa ngay def dara da ngay fay ba pare

Mm-hmm. nan nu dimbali ñu génn ci location ndax boo génnee ci location ni Yacine boo amee soom bi naan kenn du xam boo amee ruy kenn naan kenn du xam waaye boo tegalee benn ñaari ñett seetal rek fii ngeen ñëw actuellement nag di ma di ma interviewé tabaski biñ dalee dégg Rama Thiam ba tey tabaski ñëw na amagu moom xar nag ngeen dégg ko waaw mais bàyyil dóori dama xar war naa fay luyaas te damay jël war a jënd fourniture xale yi. à part bi lan ngay def fu mu toll nii. à part bi actuellement samay doom ñi may àndal muy Tony Tan Maya Jean Michel muy ndoguli ak it léeg-léeg ñu wooma ma dem dóor benn dóor euh, euh, dóor kii benn rek. dafa toog commerce bi. non non non. ndax lan ndax xam nga soo demee ñëw soo demee jënd ñëw par exemple muy tissu wala daal la nga jënd ñëw wala ay parfum nangam nangam yooyu soo ko jëndee ñëw buñ ko jëlee fayuñu la a ah, boo yorem sàq te dooy jël dooy tibb di def nii ak di jël di def ni sàq ma day jeex su dee lekk la nag sax ci ngay ëppee chance. fu mu nekk nii daal dama ci am jàppul ci dara. mu ngi ci ngénte yi rek di taxawaalu rek. génne leen ma ci